voilà d'accord am mais bala nga dem bala nga dem jiwante na taxaw. soo wàññeekoo tey liggéey politique neex na ndax yëkkati ba xaalis maye da ngaa joxe xëy benn ku ko fi def ci ci responsable de ko ci. man nag man dara sama bëdde dama la xam bii fi laa dëkk fi pour soo ko defuloon du ma ko wax bay ci dem bi waa raay di ñëw dama leen ni dem leen Pape Siré dinañ ñu ndax mooy raay ndax ko xam Pape di góor gi moo di ja jaraafar bu ñaan football ci fii dañuy ñëw ci moom ma nekk ñu maa ko ñam ñam rek la Pape Siré yàlla na la yàlla jàppale ndax tey jii

bokk ci dëkk bi bokk ak moom bokk bu zone est ñu dégg yëpp ay teranga yu muy def ñun ñu doon ay naw doon plus de 500 personnes di xëy fii di ci wàcc jaay ay téléphone di daan suñu doole bu ñu xëyee lu ñu am yóbbul ko suñu njaboot. ñu dégg nag DG am lu muy def ci dëkk bi ñun nag dañuy wax te yàlla tax am nañu woon ak moom. parce que DG bañ ko gisee ba tey ñëwagul marché Moussante. nga marché Moussante politicien yaa ngi fi ñëw di ñu jàppale. récemment Thierno Alassane Sall ñëw na fi am na benn financement boobu ñu ñëw. doyul sax marché bi xajalewu ñun ñii ay ndaw agsiwul sax fii ci ambulant yi ambulant yi amuñu benn financement boo xam ne mën nañ cee jàpp amuñu kees boo xam ne mën nañ koo jël ku ci feebar di faju loolu lépp ñàkk financement bu ñu rulee moo ko waral DG donc doon ndaw bu Thiès man ma nekk ci kanamu ndaw ñu ne fii dama ni Modou Fall mi xam ne ma PDS laa bokk mais dama ni képp ku jàppale xale yii ma bàyyi PDS jàppale la dama ni man aw ma lu dul ñii ñii laa gëm ñii laa yaakaar parce que ay góor yàlla ñoo nekk fii ñoo xamante ni ñu gëm seen bopp ñoo fi ñoo xamante ni ñuy liggéey ni daala seen ñax ñoo fi nekk dèjà ñoo ngi lay wax ni la ba nga ñëwee ba tey li nga jël Cees ñuy liggéey bëri na amagul benn nit moo jël fii ci chômeur bi taxawal ñun ay chômeur lañu dañuy daan suñu doole mais nous sommes des chômeurs parce que li ñuy jàpp lépp dara lu ñu yóbbu suñu kër ak ay dépense DG yaakaar na ña tàllal wala ko. foo ñu jàppalee ñu jàppale la. ay amuñu ñun xale yi. yaakaar na ci liggéey ndax yaa nekk Thiès bu ñu sañoon jàppale la ndax yaay doomu Thiès loolu lay gërëm di la sant gis nañ déplacement bi maquette bi nag c'est la première fois ñu ñëw muy yow wane nga sa fit wane nga sa fay yow plaats. ba déwén mu jënd indi indi kayit. fukki ñaar fukk ñaar fukk ñaar fukk yooyu xam nga lu muy jëriñ kenn ku ci nekk tabaski ba tabaski dee ci waat pour nga am xar moo jox sa ndey wala xar moo jox sa baay loolu nag képp ku koy def sonn na te mun a dañoo dem ay napp am doole dem di agressé di wala ñuy dugg ci leneen mais loolu carnet bi damaa bëgg na liir ko li ci nekk ci ay doomu aadama kenn xamul lu mu toll comité vétérinaire fu koy napp partout pour ñu am xar mu dewal fii kon DG ñoom ñooy dénk suñu bopp ñu la dénkoon nag suñu yëpp ngeen may jàppale ñu ñu ñëw ànd ak yow jàppale la man nag yi di wax ku la bëgg a fakkatal wala am na yu bëri yooyu def ci waa gox bi defal waa gox bu waa gox bi dikkee di wax ak yow. yu jëkk bari na fi ñoo xam ne yàq yu jëkk waaye li defar ñi nga xamante ne ñi fi nekk mooy xale yoo xam ne xale yu am jom la yu nangoo liggéey yoo xam ne yii bëgguñu bëgguñu ku ñu àndal liggéey waaye nag liggéey dafa am lu sukkandiku ndax bis bi dañoo employé employé employé emploi mënoo nekk ci administration waxtu wu nekk emploi waxtu wu nekk benn benn bu nekk dafa la mën a génne lay mën a génne loolu itam rek man ay ay grâce la yàq leen dañ ko defar xale yi wala jëmale ko ñu mën a ñun suñu wàllu wéy waaye ñun ñu bëgg nañ ñu wéy ñun suñu wàllu wéy mais ñun ñu bëgg nañ ñu wéy ndax ndax comme comme loolu la ñu woo salaamaaleykum wa fi mu ne fi mu war a dem dafa bari. fi mu dem dafa fi bari te amul jot. li ma ciy sànn daal mooy lii amee man maa xar sama tànku dubay. ne day ñëw marché. seet ci ambulant yi lu tax sama njaboot ñoo ci ne ñëpp samay jarbaat la. looloo am de wax na ko léegi. sama kër nii. ñoom lay dafa ñu la ak ñoom Modou Fall ak Babacar ñoom ñëpp ñoom seen ñëpp a ñëw sama kër man ak Modou Fall amul ku ma xamul ci 62 ans def naa ko fi artiste laa amul ku ma ñaqalul amul ku ma sonalul waaye nag dama amul kenn ku dul sama kër amul ku dul sama njaboot sama kër ba mu lakkee gisuma kenn kenn seet si wu ma kenn nemmeeku wu جاي بطل برك رسول الله nga bokk ak man wala ngay sama xarit wala ngay sama am di jàmm dugg naa ci sa kër waxtaan naa ak yow dama war a waxtaan yow am na loo xam ne li mëne wuma ko dëgg la ko yàlla am na loo xam ne li mëne wuma ko nañu calculer lenn Sénégal li muy def Thiès nañu xalaat ni bu ñu voté ba ci suba sa nañu xalaat loolu wax ji bari na Sénégal def nii Sénégal déedéet loolu yoru ko jëli leen seen i carte Seyda moo gagné Thiès loolu laa xam waaye Sira yaa def fii Sira yaa mel nii sama ma deful nii sama ma def na dëgg fii way fii déedéet loolu yoru ko nañu jël suñuy carte Modou jébbal ko ko la mu bëgg Thiès nga ko ko kenn Moussa Gorgui Moussa Ka nee na di ci teg xooslu maan yi dégg nga li ma xooslu maan yi ngeen ci teg. leer leer la wala sos bi dëgg lañ. mu ngi leen di DG nee na mu ngi leen di gërëm ci teew bi ngeen ko teew bu na ci bés bi. xaar pare bu président Gallo dañ ko présenté waaye nee na jàll pexe waaye tey la ko yàlla dogal la baax de DG Sile Dia nee na mu ngi gërëm waa marché mu sant bu baax a baax ñun ñu ko teew nee na seen teeru bi ak li ngeen wax yëpp nee na dégg na ko nee na dégg na ko bu baax a baax responsable bi Badou Badou Mbaye nee na jël na fi mooy ku leen jàppale mooy collaborateur mi ngi wax naan moom. waay tàcc loolu waay. nee na na Gosaar jël contact ak yéen nee na ko pour ngeen jàppale waaw nee moom ñëw fi di liggéey liggéey. Now, if you amina yomu mala fay engagement ci samay côté te gisagoo dara vraiment bu la remercié wax nga ko dama bëgg rek te yàlla tax ma la ci gërëm bu baax léegi li nga wax dégg naa la bu doléance yi nga wax jeunes yi ak jigéen ñi jeunes yi wàllu liggéey la jigéen ñi seen avec yi waaw bu soobee yàlla Go Sarr dina jël seen contact jëlal contact Amina comme ça bu ngay liggéey la yan avec yi bu soobee yàlla di nga ngeen teg seen bët incha allah wàllu jeunes yi incha déglu leen s'il leen. wàllu jeunes yi tam li nga ci def ci yeneen gox ci Thiès incha allah jàmm gën ndax sa bakkan dinañ ci gis seen bopp. guddi na nag dalaa nekk ci campagne tànk yi dul dara campagne bi du dara lu dul président Macky Sall am confiance ci man ma tête de liste départementale bu may dëgmal nag ay élection yu am importance yoo xam ne président Macky Sall fi bàyyi xel bu baax a baax Sénégal yëpp bàyyi xel Thiès Bayor ma leen ci yaakaar bu baax a baax yàlla yéen laa ci yaakaar pour ngeen ci gën a bu ko amiin amiin donc ma leen di ñaan ngeen dem retiré ji seen carte yéen te bu bés ba ngeen voté bulletin bi bii mooy bu baax bi mooy bu marron bi ànd ak bu am bopp fas bu beige bi am nataalu premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne donc bii mooy bu baax bi xàmmee leen ko ràññee leen ko bu bés ba moom ngeen di jël voté ci urne ba mu fees tel balaa ngoon ngeen may ma victoire éclatante

insha allah man li ma wax bu suba yaa bu suba di ngeen ci xam dara abe insha allah rabbi donc suba yaa nga tul insha allah maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm wa salaam asalaamaaleykum waa bambara maa ngi leen di nuyu nuyu bu gën a di leen gërëm di leen remercier seen teeru bi rafet na kontaan naa di jiital ci nuyoo ya, bi nag soxna Yacine Ndiaye jàmbar jàmbar la ku loyal la ku fidèle la ku engagé la sama derrière derrière moi amin amin amin depuis bi ma commencé politique ba léegi mu ngeeg man mosul yox yoxi dara fëkk ko lu ma xewle moo ci jàmbaar moo ci gën taxaw donc maa koy na lu ma fi dégg nag lu leen yaasin porteel seen doléance mm-hmm. maanaam financement jigéen ñi mm-hmm. Daisan Daisan eh, dégg naa ko bu baax maa ngi ñaag Gosaar may doxal yooyu hmm. financement mu noté bu baax jël contact Yacine xam nga ko déjà bu nga dox eh, saa li may dafa ak yeneen jigéen yi nekk ci yeneen gox ngeen gis ci seen bopp yéen it tàccu leen loolu tàccu leen loolu léegi nag dama nekk campagne parce que le président Macky Sall moo ma defal confiance moo ma jox confiance def ma tête de liste département Thiès ma jëm ci ay élection yu am solo yu am importance muy élection législative 2017 te ginnaaw yàlla yaakaaruma ku dul yeen mal ko pour ngeen sigil ma bu bés ba ci kanamu Thiès kanamu Sénégal yépp donc ma len di ñaan yeen ñëpp ngeen dem retirer sen carte et bu bés ngeen xamee bulletin bu wóor bi bu baax bi ndeysaan bulletin bu baax bi mooy bu marron bi ànd ak bopp fas bu beige bi am nataalu premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne

sëggil ma ci kanamu président Macky Sall sëggil ma ci kanamu Sénégal yëpp ngeen may Macky président Macky Sall majorité ci assemblée national mu mën a àggale mébétam yëpp ci Sénégal. réew mi dal. Sénégal soqaliku. maa la ko wax. ma gën leen mën a jàppale. ndeysaan kon nag yaakaar naa ci yéen bu baax a baax. di remercier waat soxna Yacine Ndiaye jërëjëf jërëjëf.